والعصاب بترا وردني سريعا إلى توبا وحدني وحلمي مع الآل والعصاب بطرا وردني سريعا إلى توبا وحدني وحلمي مع الآل والأصحاب بطرا وردني سريعا إلى توبا وحضني وحلمي أباهم ببيت الله ثم المدينة وفي البيت مقدس ثم البيت محمورا أضاهم ببيت الله summa almadinata wa fil bayti maqdisin summa albayti mahmura awaawum bi bayti laay summa almadinata wa fil bayti maqdisin sumal bayti mahmura suñ mbokki jàkkaaroon ci seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa su ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne ndigal bàyyi ko fa mbaaxoo bàyyikoo ci xalifa général kulu murit cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak ci ci kilifteefug sëriñ xaadim mbàkke moom sëriñ mbàkke soxna loo sëriñ seexu naa mbaj jànkatu xasida tuuba moo am mbégte kontante di woo mbokki jullit yi mbokki taalibe yi xarit soppe wala rek am di jàmm képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ci bisu mag bisu diine bisub lislaam bés bi nga xamante ni moom la ñuy sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di ko delloo njukkal fii ci Touba Soura bis bi nag mi ngeen war a nekk incha allahu rabbi le 22 mars tombeek alxemes fii ci Touba Soura looloo tax sëriñ Cheikh naa nee na mi ngi ciy woo mbooleem njaboot ak sëriñ Touba gi tàmbalee ko Daaru Xuddoos kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Moutada kër Soxna Faat Ja ba ci kër Soxna May mbooleem seex yi bàyyul kenn bàyyul fenn bàyyul ñenn mi ngi yëg yëgle ni bës bii kat mooy bésu jànkati xasida yi mooy bésu soppee xasida yi ndax dañ ciy sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ren nag am na mbégte mu yaatu ak kontaante gu rëy tuddee ko xaritam soppeem sëriñam di sëriñ Mamoor Mbacke xam sa diine waaye tam mi ngi ko dara jaale xaritam bu yàgg di wala réew mu yàgg ak moom di sëriñ Abdou Lahad Seck Sadaga député assemblée national looloo tax nee na mi ngi ci woo mbooleem daayira yi mbooleem daayira soppe yi fu daayira soppe nekk rek mi ngi la ci woo waaye itam di ko fàttali sëriñ Basiru Mbàkke imam moom sëriñ Moustapha imam ak soxna Xadi Baari ca Kaolack ak mboolem soppe yëpp bàyyiwul kenn nee nag mboolem daayira yi mbooleem jànkati xasida yi su tuddee sëriñ Fàllu Njaay tudd sëriñ Xaadim Gueye sëriñ Abdou Lahad Seck sëriñ Abdoulahi Seck yóbbaale na mbooleem jànkati xasida yëpp kon nag bis baa ngi noonu programme bi nii leen tëddee suñu xëy dina fa amal njàngam alquranul karim xasaayit yi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul durus xasaayit istixfar salaatu ala nabi waaye som su nee ba ca ngoon nga dina fa amal cérémonie religieuse boo xam ni ci teewaayu Serigne Mamoun mbakki xam sa diine lay amee ak mbooleem njaboot ak Serigne Touba gépp su guddi gaa itam ñu wéyal njàngam xasaayit mi ngir woote woote bu tedd woote bu sell boobule moo tax dañ yëkkati kàddu gu njëkk gi jox ko Serigne Modou Mbaye Samb di ku yàgg ak Serigne Cheikhouna Mbaj mu woote ginnaaw woote Serigne Modou Mbaye Samb di jox jox moo Modou Ndiaye mu woote ci turu mbooleem soppe yi nekk ci biir Sénégal waaye tamit nekk ci bitim réew yëpp ginnaaw ay kaddoom ñu jox Serigne saaliyu Badiane kaddu gi moom tamit mu woote ci turu Serigne Abdou Lahad Seck sa dagga kaddu gu mujj gi nag ñun ñëpp ñu daal di àndandoo jébbal ko Serigne Mamour Kayre Serigne Mamour Kayre digganteem ak Serigne Cheikhouna Mbathie day ci yëkkati kaddu waaye tam yebal ko fi tam ba tey Serigne maamoor Mbacké xam sa diine mu fas yéene yëkkati kaddu ci turam moom mi nga xamante ni moom la tuddee bis bi kon Serigne bi ñu jox kàddu gi Serigne Modou Mbaye Samb Serigne Modou Mbaye bisimilah. bokki julli yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu bu baax kenn ku ci sa tur sant te di leen ziare bu baax a baax tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké sama borom dolli ko fi yàggal te may ko wér ba li mën naa liggéeyal Serigne Touba lépp mu def ko ni ko bëggee te ñu ànd moom xam ngeen nii bu ñu gisee jotaay bi xam ne ndigal bàyyi ko na fu mu daan bàyyi ko comme ni ko mbokk mi wax léegi rek biir Serigne Cheikhouna Mbathie bi mu daa amal sant kan. sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñam ba soppem ba xaritam ba wëlëram xam ngeen ni sëñ Cheikh kat defal na sëriñ na ak képp ku mu bokkal sëñ Ibrahima Mbaj lu jar sant ko xam ba ci pàkk bi ñu toog tey jii xam ngeen ni loolu rek jaroon na mu sant ko waaye nag sëñ Cheikhouna na bis boobu ka ren jii ren la ci ñaar fukki at mu bari ay xeexaw yu ci lool waaye mu tudd ko kan sëñ Mor Mbacke xam sa diine ak kan sëñ Abdou Seck Sadaga sëñ Cheikh naa ne bis boobu nag mi ngi ciy woote képp koo xam ne moom bokkal asadun laa ilaha illallah mi ngi woo ci bis bi waaye nag di woo ñi nga xam ne moom la wala renteel jàng jàngkatu xasaayid di ak ñan daayira yi nga xam ni ñoom lay jugee den bëggal ci xasida xasida yi sëñ Cheikh naa ne mi ngi leen ciy woo waaye nag mi ngi ciy woo mboolem képp ku sotoo ci su sunu maam Ibrahima Mbaj mi ngi lay ci woo ak kan képp koo xam ne sotoo na ci sunu maam soxna Ndiaye Guèye ak soxna Jimbi mi nga xam ne moo meññ suñu waajur wi ci kër gi muy sono Xadi Wàdd yàlla na sa ko fi te may ko wër moo waajur mu góor wi sëñ Cheikh naa nee na képp koo xam sëtoo nga ci ñooñu rek mi ngi la bis bi waa Sine bàyyiwuñ kenn waa Jogo bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ñu ngi ñëpp waa koñ bi ne ñëpp génn si incha allah rabbi bis bi nag ah, le 22 bi ñu nekk ci lay doon fi mu daan amee kon ñu woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn salaamaaleykum. mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan su ngeen gisee ndaje mi xam ne dëgmalite nañ bis bu màgg dëgmalite nañ bis bu tedd bis bi ko woote sam murit bi tiijaan wala laayeen ak xaadar bépp tarixa bu mën a doon am nga kuréelu daayira te kon yaakaar naa war nañ ko delloo njukkal ci daayira bi nga xamante ni Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma moo ko njëkk a taxawal ba mu daj àdduna kon bu ñu tuddee bis tuddee ko Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ñëpp war nañoo dagg seen yitte ñëw sant ko delloo ko njukkal te xam ne ku ne ameel na ko njukkal waaye rawatina nag Serigne Mamour Mbacke xam le diine xam sa diine te di ko xamle moo woote kon yaakaar naa bépp jullit ak foo mën a nekk bés bi war nga cee am pas-pas bu rëy boo xam ne nga ko cee war a feeñal ba ñëpp xam euh, sa diggante ci diine ji ndax sëriñ Maam Mor Mbàkke xam sa diine képp koo xamante nii yaa ngi wax asadu an laa ilaaha la donte ko benn bayit la wax na ko moo xam ne jariñoo nga ci kon war nañ koo delloo njukkal waaye may woote ci turu soppe yi bépp soppeb jàngkat ak foo mën a nekk moo xam biir réew mi ak bitim réew ñi ngi lay woo ci sunu bis bi bis bi nag Serigne naa daf ko fonk lool waaye képp koo xamante nii xaritoo nga ak Serigne Cheikhouna it fonk nga bis bi ndax amuñu lenn lu dul moom amuñu dara dara lu ko gën bis bi rek la ñu am bis bi vingt 22 mars la incha allah bépp jullit ak foo mën a nekk rek ñi ngi leen di woo ci bis bi ñu ànd ko ak yéen rawatina sunu mbokki jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñu seqal waa ñu di ay soppe moo xam jànkat bu mën a doon ñi ngi leen di woo ak fu ko waay mën a dégg ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam wa auzu bi kalimaatillaahi taamaati min sharri maa xalaq assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di mbokk yëpp di leen ziar eh, di rafetlu jotaay bu baax te ñaanal kilifa gu tedd gi mun Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér te sëñ Sidi Moxtaar suñu borom defal ko riddan wa rahmatan min allahi al badi eh, sëñ Cheikh naa ñu ngi lay ziar bu wér a wér a wér Abdoulaye Seck moom fi yebal neen wax dëgg yàlla bég na ci yow te kontaan na ci yow lool mi wax na yow xeeboo ko benn yoon ndax diiru jamono yéen bokk nekk ci koñ bi waaye gis na jëflante gi ni mu ni mu ni mu rafetee yàlla na suñ forom suñ borom fay ngeen gi fay incha allah mi ngi wax ne nag ba bis ba di ci woo bépp soppe Abdoul Ahad Seck bu dëkk ci koñ bi wala képp koo xamante ni mas naa jëflante yow ak teraanga te suñ borom rek tax mu ngi la ci woo bu boobaa na ñëpp ànd maa su nekk benn ñëw ànd ak moom ci bis bu bis bu bis bu rafet bii nii. Euh, kontaan nañ ci nag bu wér a wér wér ndax dafa dem wuti te sëñ Touba dafa yàgg ñaan ci dëkkam bii di Touba wa jublaha xayra minal jihaati ashiti wa fiha anil afati na ma maa ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu indil ma xéewal nekk ci penk bi ak saw bi mu ñëw ci dëkk bii di Touba kon nag ñun ñëpp ñu ngi ànd di ci lool loole dem la dem wuti waaye incha allah dina ñëw ba boobaa danañ teew ba ànd ak yéen lépp ci jotaay bi lu ci dëng nag ci man la lépp lu ci jub tabaaraka wa taala la waaxiru daawaana an alhamdulilah illal lesina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri wal tukammil aqdi wa xilmi wa saxi war fa xil yamakullaha yaa muhin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan jataay bi mbaa ngay gis mbaa ngay dégg sunu kàddu noo ngi leen di siyaare bu baax jiital ci siyaar bi nag Serigne Mountakha Bassirou xalifa général de Mouride di ñaan sunu borom yàggal ko fi ak njabootu seexul xadim gi fi des yëpp niki noonu ku gis ni ko mbo mbokk yi fi jaar waxee. xam ne bis bu mag euh, daa agsiwaat nanu ko baaxoo daa defee muy bis boo xam ne am nañ ci ndigalal Cheikh Ahmadul Muxtaar Gaynde Fatma Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifa Daaru Xuddoos am ci ndigalal sëñ Abdourahman Mbakke moom sëñ Cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma am ci ndigalal Serigne Moustapha Mohamed waaye nag am ci ndigalal Serigne Xaadim Mbakke mi nga xam ne mooy wasilaw seexu Cheikhouna di njabootu Serigne Mbakke Soxna Lo gépp itam bis bi nag ñu nu ko waxee sëriñ Serigne naa ab yëngoom akuk dalam lépp sëriñ Tuubaa la ndax benn bu xëyee ci sëriñ bi lay xëy bu bu gonte ci sëriñ bi lay gont kon nag bu wootee yàlla na ñi ko sëriñ Moodu waxe sànq sëriñ Moodu Mbay yàlla na bis bi ki muy sant ñun murid yëpp ñu sant ko ndax koo xam ne tey yaa natal sëriñ bi dëkk bi lii ñu ko ba agsi ci barab bi woo seen maam sëñ Ibrahima nat ko pàkk yi yëpp mu jox leen ko ñu dëkk ci kooku yàlla na cant waxuma la dara lim liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi waxuma dara daayira yi nga xam ne wax na ne yoon ñi jëm ci yàlla yëpp danoo xool ne yoon daayira wi wii moo gën a gaaw a àggali ni ci yàlla ngir bennoo ganuy bennoo maase niroole ay yére noonu xol yooyu bennoo tey suñu borom digal ñu ne nan booloo doon benn wax tasima bi hablillahi jamin wala tafaraxoo kon loolu la Serigne Cheikh gis kon yell na Serigne Cheikh naa wooteel ko bis te bis bi ndigal lim ci am itam waa juróom Baye moor moo ko daa taxawu ba mu agsi ci ay loxoom kon bis bi Serigne Cheikh naa def ci dara yaasar lépp lu mu def rek. daa am lu ko sos waajuróom a ko sos ba mu agsi ci ay loxoom tey tey it sëñ naa moom yàlla dogal na ab ab yëngoom ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi koo xam ne bit bi set yaa ngi ci xasaay sëñ Tuubaa di ci béggal nit ñi kon bis la boo xam ne bu wootee bis képp ku di murit mbaa nga yëg sëñ Tuubaa war ngaa mën a ñëw delloo ko njukkal ndax benn wax dëgg yàlla jàmbar la ci li muy defa bëgg na li muy def am na ci pas-pas kon nag ñun murit ñoo war képp koo xam ne la sëriñ Tuubaa waxam ne sama jànkat yi ku ma leen teral ma teral leen ma teral la kon ku teral sëriñ Cheikhouna sëñ Tuubaa lay teral la bopp kon nag ñoo ngi sëñ Cheikhouna mi ngi woo ñëpp képp kuy dégg suñu kàddu sëñ Cheikhouna ngi lay woo ci bis bi di ñaan ñëpp teew ci ku ci teew la dala ci eh, nin ko waxewoon xalifa général ay ay ndawam ak ñeneen ñeneen ak eh, xalifa Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babu Mudira mboolem Cheikh yi Sëriñ Tuubaa yëpp ak mboolem wóllëre yëpp ak mboolem dëkkandoo yi bàyyiwun kenn ñoo ngi sàkku ñëpp jàppale ci bis bi ñëw teew ci sëñ Tuubaa tax ginnaaw loolu itam ñu jot li kàddu sëriñ Mamor Mbacke mi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi sëriñ mamoor ni li dal sëriñ naa du ko dal ndax sëriñ Mamor moom itam bañ na ko sëriñ Mamor xam le diine nga xam ne ab yëngoom ci diine yi lislaam te suñu borom wax ne wa man yabtaqi fa islaam diina falan yuqbala minhu inna diina inda llaahi islaam kon ku nekk ci toolub lislaam kooku lislaam gépp ko war a fay delloo njukkal kon bu ñu jëlee bis bi tuddee ko sëriñ Mamor yàlla na sëñ Cheikh naa mi ko def itam sëñ Mamor nee na li mi ngi lay sant bu baax tey di ñaan itam sëñ Mamor na mi ngi ñaan képp koo xam ne soppeem nga mbaa ngay bëggee lislaam mbaa ngay bëggee xasaayit sëñ Tuubaa yi mbaa ngay bëggee wolofal yii muy def sëriñ Cheikh naa di ko jàng ndax sëñ Cheikh ku ko xam tey ginnaaw yàlla wolofal yi sëriñ Mamor Mbàkke di yëkkati di ko jox moom ci la ko ñëpp xamee mu ginnaaw bu mu doon jànkut xasaayit nga xam sëñ Tuubaa ko tànnal boppam waaye wolofal ci lañ ko ràññee sëñ Mamor nag nee képp koo xam ne mbégam day sa mbég mi ngi ñaan nga teewal ko ci bis bi dana ànd ak ñi war àndal ay bokkam yëpp la la dal ci xalifa sëñ Ibrahima Mbacke yàllay buur mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mor Diarra ak mboolem njabatuk sëñ Mor Diarra gépp dana ànd ñoom ñëw ak i dëkkandoom ak wóllëreem yëpp ngir teewal Serigne Cheikh naa delloo ko njukkal ci bis boobu kon nag bis boobu na ko ñëpp bàyyi xel waxtu wi ñu wax ne wax waxtu cérémonie ba 23 heures bu boobaati sunu kilifa gi nga xam ne moom lañ yaakaar muy Serigne Khadim Mbacke Mouhamed moo ñun ñooy bokk teewaay ba tey dana fa jotli ay kàddu yam fa laa jotli waxtaan wu am solo woowa kon nag yellan na kon bis bi njariñ yi ci am rek kenn ku ne dagg sa yitte ñëw teew si teew ci bis bi bis bi bu nu xëyee ni ko Serigne Moussa waxee danañ ci jàng arxuwaan def salaatu ala ne istixfar bu guddi gaan nag bu nu reelee ba noppi dem ca baas bi def cérémonie religieuse bi ñuy def ba noppi bu mboolem axlu xasaay ji Sénégal yëpp. la dale ci jànkati xasaayit booy ma booy dégg ñoo ngi sàkku yàpp nañ dana teew ci bis bi ndax yëgal nañ ko ñëpp kon nag ñoo ngi sàkku taalib yëpp teew soppi yëpp teew ku ñëw day jàpp naan di nga am mbégte te mbégte ma ngi cay kii yàlla nga ci daje mbégteem Serigne Touba ñoo ngi ñaan ku fi ñëw jéegu yi ngay delloo ak yi nga yi nga yi nga yi nga ñëwee yàlla nga ci daje ngërëmal Serigne Touba bis képp koo xam ne tam mënoo ñëw ñoo ngi sàkku foo mën a nekk limu Alxuraan limu salaatu ala nabi ak loo mën a xam ci lu baax def ko boo fexee wo numéro yi ñuy joxe képp koo xam ne woote nga ci wala boo mënee ñëw ci bis wala nga bindu koy yóbbante ko soo ñëwee ñu boole ko ci ñaan googa ndax ñi dem ñu leen di fàttaliku loolee ñuy def dana dem ci ñoom waaye day dellusiwaat ci ñun. jër ngeen jëf mbokk yi kon woote baa ngi noonu bis baa ngi noonu bis bi ñuy sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma ci sëriñ Cheikhouna Mbaj di ko woote fii ci Touba Zoura kon bis baa ngi noonu tolloog ñaar fukki fan ñaar ci weeru mars wi di alxemes incha allahu rabbi sëriñ daa bëgg soñ ci bu baax a baax mboolem jànkati alxuraan yi suñu xëy ñu teel a ñëw waaye itam duruskat yi bëgg nañu durus fi xasaayid yu takkoo takku lépp ñu jagleel ko sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak képp koo xam ne fekk nga ko fa ak képp koo xamante ni fekk na la fa kon nag mbokk yi ba tey mboolem ñi nga xam ñoo dëkk ci koñ bu nga xam moo di Touba Soura mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Touba Soura sëriñ ne mi ngi leen sant ci li weesu di leen tàllal loxo ci li nga xam ne moom lañ dëgmal ndax seen taxawaay ci bés bi ràññee nañ ko mi ngi leen ciy séentuwaat bu baax a baax di siyaat di ko di ko yëgal itam mboolem jànkati xasida day ni leen seen bës a ngi noonu mboolem soppee xasida yi seen bës a ngi noonu mboolem ku bëgg lu baax rek sa bës a ngi noonu kon incha allah rabbi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu